Assalamualaikum warahmatullahi good morning good morning sama guys. Nako suba gi ba lepp jam ya gis nga ko nak ñu na xam nga dañu dooron war ni rek day doga wacc ci fajar gi ni ya demb nak bi ya, may do na naa walé. Ben euh eh, eh, fu malade indi ben attention ci man quoi ben attention lo xamni ni dafa très attention ci man ok euh, sa grand bobu non ngay netali bala may bala may faran fàcce sax moy demal nga jox ko jomay mu jëlo mu jël xaliss bi chompal la ci delloo xaliss bi borom, seni borom. war nañu xam ci ban bank la nekk parce que li ma xam ci banque wala muy bitig dégg nga bu fekkee ne ñetti fifteen la la war a wecc daf la koy wecc boo demee ci grosserie yi bitigu magasin yu magasin yi grosserie yi fi ñuy duggee boo jëndee ba pare loo mën a joxe bu dee cent dollars la wala nga jënd njëgu mille dollars wala cinq cent dollars bu amee weccet daf la koy delloo même bu dee ñetti fifteen la la wala benn fifteen benn cents daf la koy delloo léegi ngay liggéey ci banque maanaam ni nga waxee ngay liggéey ci banque nga ñëw dugal xaalis moom amul droit ne la da nga koy maanaam maanaam mu bàyyi ko foofu da nga ko war a jox weccit bi waroo fa nekk di ko téye amaana sax weccit bi yow da nga koy yor mais da nga koy téye ni ko amoo weccit nga nekk ci milliardaire kon euh, euh, ba kii procureur kiy woote war naa woo Fou Malade mu leeral lii parce que ci jub jubal ak juban la fi bu leen fi nekk di calculer di di calculer nan no kii deful waxul dara politiquement wala deful dara dafa jàpp njàmburam wala ki di ko wax nii kat mën na yàqal kii àddunaam dara dégg nga parce que loolu mën na ko def mën na nekk loolu mu def ko systématiquement pour moom dégg nga nga dem ci banque bi ñu war la wecc wala bañ la nga bañ ñu tardel la ñu de ñu ñu euh, yoreel la euh, ñetti dërëm waaw ñetti dërëm ci weccet ñu war la ko delloo kooku di ko dajalee nekk ci milliardaire te di ko ndamoo nag wala di ko waxee léegi nag euh, anyway réew mu jaar yoon wu ne même buñ ko waxul ci kaw danañuy ko liggéey ci suuf ba lijjanti loolu mu doon waaw kon sa grand boobu noonu li ma lay wax rek mooy demal nga jox ko jomaay mu compal la parce que nee na pour dénoncer nga indi lu leer dénoncer mën na laa compal waaw mën nga ko jël ci man garaaw nga jëlaat si keneen garaaw boo ko defee un million euh, nit nag un million nit ku ci nekk nga jël si moom ñetti dërëm juróomi dërëm mooy nga nekk milliardaire réew mi dañ ko war a tabax jubal nit ñi jug quoi sàcc gi dafa yàgg te métti ay doomu aadama yoo xam ne dañoo fas yéene dund ci kaw suuf di sàcc rek ah xanaa xamoo yow gouvernement bi ngay yar leen sax ñoom ëllëg mën nañ la cee gërëm tey nag mën na leen ba neex mais ëllëg yàlla bu leen demee ba ba ba ba ba nga defloo leen lu baax mooy jub jubal jubanti ndem ñoom bëgguñu jub ëllëg yow mën nga ci am tuyaaba sax yow mi jël sa responsabilité taxawul sénégalais yëpp waaw taxawu leen sénégalais yëpp gouvernement bi ngeen yemale leen ñu doon benn dégg nga mooy ku la fara ku la faru ko nekk président wu sénégalais yëpp te dox ci jub ak jubal ak jubal milliards yi li ma ci bëgg a wax mooy yi nga xamante ni Macky Sall euh, leb nañ ko dégg nga euh, xaw ma ñaata ci nangami milliards lim gu takkoo takku nga xamante ni gouvernement bi pour nga maanaam damay joxe sama idée rek mën ngeen ko bañ a xeebit dégg nga idée bi mooy réew mi ñu fi nekk te jànguñu dafa bëri dégg nga mooy leeral leen maanaam li fi Macky Sall def lépp li mu fi tabax lépp ngeen ñuy jël ngeen xayma ko ngeen comparé ko ak milliards yi bu ko defee yenn sénégalais yi dinañu comprendre dégg nga il yéen a ngi focus ci ay nit yoo xam ne ay Abdou Nguer yéen patriote yéen a ngi focus ci ñoom ñuy jéem a ñu ñu nekk ci seen i xeex boo xam ne yow yaa ko koy fësal yow yaa koy fësal mën duma ko partager duma toog ci moom benn seconde di ko déglu wala ñaar waaw waaw ginnaaw ba nga demee ba xam nit ki mooy kan ak lan moo ko tax a jóg yow am na lu la tax a jóg yow dégg nga parce que tamit li yi gëm mooy xel day fattu loolu la ñuy wax de yenn saa yi ah. xel day fattu la ñuy wax quoi lii faw ñu fàttali ko di ko di ko di ko gën a leeralal sénégalais yi mais ah, ah, ndax dafa am temps bu ne da nga wax mais nit ñi duñu dégg day ñëw étape par étape ñuy dégg noonu la gars comprender comprendre Pastef noonu la taxawee tamit sénégalais yu yu bëri yoo xam ni ñoo ànd ak moom récemment dégg nga bàyyi wuñ ko woon xel ñu ngi focusoon ci Macky Sall te ñu ci bari dañ koo contrôle waaye bu ngeen xoolee ñu bari ñëw nañ lii xew lii dafa jéggi dayo milliards yi ni mu ko tonnee ñu bëgg ko wayefal ñun ñu toog rek ñoom ñu ñu jël ci milliards yooyu ba tey jóge nañ fi waaye di fay ay nit ñuy dem ci plateau yi ñu yoral leen seeni dépense nañu waxante dëgg di fay ay nit ñu yoral leen seeni dépense mais loolu ngeen yaakaar ni jaadu na quoi dégg nga ci alalu askan wi nga xamante ni ñoom dañ koo sàcc sàcc yu leer nañ léegi nag man. xamna limay wax sax mën na am yéen a ma ko gën a xam bu leen yaakaar ne li ngeen fi waxoon nit ñi dégg nañ ko rek jeex na déedéet yàlla dafa bind doomu aadama mais doomu aadama yi yamuñ ñii ngee ñuy xeeb nii mën nañoo def ci yenn bopp sénégalais yi xolo kooku may na weccat de gis da ngay toog ci di liggéey rek gars yi yónnee la weccat non fii yàlla waanu ñu mooy xam nga boo liggéeyee yëpp client ba noppi boo yemee client bu demee ba kontaan bu demee këram wala mu kii ñibbi ba ba xel mi dal léegi danaan ah sama ki ma ki ma sama chauffeur bi de tey war naa ko may dara dégg nga da ngay rekk jékki rek mu signaler fii génn maanaam weccit bi ñëw njaayeen ni bu leen wax dara xam nga fan laa toll woon <laughs> léegi yéen gouvernement bi xayma leen Macky Sall li mu doon tiitaroo ba ay nit di ko ci gërëm ñaata la ñaata la ko sinuwaay yi tabaxalee stade bi ak lan la jox sinuwaay dégg nga ngeen gën koo leeralaat bind leen ci téere jox ko yenn intellectuels yi ñu déglu yi ci des ngeen jël seeni for ñi ngeen formé seen chroniqueur wala lu mën a doon ngeen jël ñooñu dégg nga euh, ñu ñu tasaare affaire bi ku yaakaar ni xeex nga ba gañe mbir mi dangaa war a noppi ndax nga sa bopp dégg nga wax ji du la yàqal dara même bu dee ñaari minute la wala benn minute du la ko yàqal maa ngi nii dama fanaanee liggéey mais julli naa fajar nag ba wàccaat ci suuf dégg nga sept jot na fii léegi huit heures jot sept heures mais dara gëmmentu defuma ko waaw gëmmentu comme gëmmentuwuma nag mën naa wax ci sama réew quoi mani ñii Macky Sall dañoo yab de li yi def ci réew mii jéggi na doyo de du lu du lu tuuti de ay nit yu ñeme di toog di fenn barke alxuraanu kërim xoola Mame Mbaye Niang ndekete bi dëgg la woon ana ñi doon protéger Mame Mbaye te nekk ci réew mi ñoom dawuñu ana ñu lan moo leen teree génn ñu ni Mame Mbaye Niang yow kat bett nga ma kon xam nga ni ñooñu ñoo bokk ci kaa bi na ñëpp delloo dégg nga na ñëpp delloo bu ñu bu ngeen toppee Doro Gueye mu ni kii laa jox kee laa jox kee laa jox kee laa jox ñoom ñëpp nañu dem delloo bëri na ñoo xam ni alalu askan yii la ñu tekkee ñëpp targade doomi xaraam yooyu yépp ñu delloo xaalis bi wala ñu dugg ci kaso bi dégg nga yomb naa ba ma nga fees ak ay APR te nañ ma ci feewu Macky Sall am na am na ku ma signalé ni ma gaa yaa ngi tabax tabax yu gaaw yoo xam ne étage yu gudd yoo xam ne te loolu yomb naa lijjanti boobu ñu ngi complot ñii rey nañu xale yi tabax ci seeni étage ñii complot nañu tabax ci seeni étage dégg nga gouvernement du doxee noonu mën ngeen régler lii lépp vingt ans wu Macky Sall yii vingt nangamu at yi Macky Sall yëpp mën ngeen koo lijjanti tegaat ko ci yoon ñu ngi seen ginnaaw leeral leen quatre mille milliards wala mënul li Macky Sall tabax yëpp xayma leen ko ngeen xool gab bu bëree bëree bëree bëri mais lii dafa yomb dafa yomb meen lii dafa yomb gab bi moo bari non waa ji mooy sàcc laa ilaha illallah kii taxul jugul woon sax pour liggéey ndekete Macky Sall maanaam doxul woon sax ci plan liggéey la mu waxoon yomb na nag baa ngi noonu rey nañ ko loolu Macky Sall mës nañ ko wax waa léegi man nag bi rey nañ ko ku ne yor sa paaka léegi loolu lan lay njuru lu muy tekki lii wax Macky Sall la ñun ñuy supporter ay sénégalais yoo xam ne ñun ñu ngi toog ñuy dem ci plateau yi te ñi la ñuy fay ñoo yor suñu alal sàcc ka daw ñenn ñi daw nañu leeral leen suñu yaay yi suñu maam yi leeralal leen ngeen xayma li Macky sàll tabax ñu koy tiitaroo yenn doomu aadama yi di dem ci plateau yi di ko tiitaroo wala ñeen saa yi ñi def ay vidéo di ko tiitaroo ngeen leeral ka askan wi ak gab bi gab bi nga xamante ni milliards yi dañ koo leb mu leer nañ tunkara ngay dof dof lu rek mel na na siite réew mi dara xewu ci mel na na siite yow comme yow jàngi ngeen bu ñëwaat yéen dong yéen a am xel ñëpp a nekk seen kaw gis naa benn femme sax bu doon wax démb ci suba di wax naan gars yi ñu ngi wax lu nekk mais man am naa ay diplôme duma seen moroom duma seen moroom loolu la wax am naa ay diplôme duma seen moroom bañ taxaw ci kanamu yàlla dégg nii nii nii lañuy gisee na ngeen xam loolu wallaahi nii la ñuy gisee te nit kuy gisee noonu doo nit waaw yor naa diplôme bu la kan jox Karl Marx du ma seen morom ñi est xam nañ lan mooy alxuraanu karim yaakaar naa xamuñu luy alxuraanu karim kon ku la ko jàngal rek bu ko xeeb waaw ku la ko jàngal du ko bu ko xeeb ndax da dalay jàngal li nga xamante ni mooy nekk tey jàngal la tamit fa ngay mujjewaat ëllëg ku xam loolu nga bëgg fi nekk naan doo moroomam réew maa ngi noonu lii mooy senegal nekk leen ay nit te bàyyi complexe bii Tunkara waxal sa Macky Sall sa waa ji dëgg moo gën bu 2S Tunkara bu 2S laay wax gis naa la ngay wax ak waa waajooju sant jàll xaw ma muy expliqué naan fii ba 2000 fii ba dix ans bu fekkee ne réew mi gouvernement bii fi nekk mi ngi taqale te maanaam affaire yi avancé wul rek dégg nga te kooku waxam la moom bul tontu waxam ci ñoom Sonko moom gis-gisam la wax te loolu sax mooy dëgg yaa gën a xam milliards yi yaa gën a xam milliards yi Macky Sall tabaxee li mu jot a tabax ci bi mu fi nekkee ak li mu leb fan la dugg yow mii lekk nga ci ndax dalaa jël te soxlawu la mooy jëf la ministre conseil di la fay deux millions parweer ngay laal ci université ba ñaata di laal ci 2S ñaata yéen ñi yéen a lekk xaalis réew mi kon loolu leer na moo tax yaa ngi koy défendre ba tey waaye nag di ngeen bàyyi ñu nit ñu défendre li ñuy défendre muy réew mi yéen défendre leen Macky Sall mais di ngeen ñu bàyyi ñun ñu défendre réew mi te réew mi amul kenn koo xam ne dinañu tere pour ñu défendre défendre réew mi mooy jàpp criminels yi dugal ci kaso bi jàpp du drogue dealer yi dugal ci kaso yi yéen ku leen xool yéen équipe bu song bi xam ne du ngeen fóon drogue du ngeen ko muucu bëggoo leen ko loolu nag la yàlla soxla woon te jox nañu ko dégg nga kon bu leen am complexe kenn bu fi benn picc nekk di jaay zéro cocaïne laa bëgg dégg ci réew mi zéro drogue maanaam pour pourcentage bu jógee cent pour cent ba zéro laa bëgg waaw ku bëgg a toxi dorog nga dem ci dëkk yi ña koy defar dem dëkk ya koy defar wala ya koy ya ya koy jaay nga dem foofu noonu loose fa di fóon say dorog booy yi bu ñu gisul dorog bi duñu ko utiliser te dégg naa ni yéen ciy def liggéey bu am solo waaye na la leer ni band yi dëgg-dëgg yenn saa yi dañuy nekk ci biir système bi yow Sonko ak Jomaay na nga ci bàyyi xel système bi raxas ko xale yi nga xamante dañ leen doon torturer te ay gendarmerie di ko def def leen ay enquêtes yu leer nañ raxas leen système bi dégg nga du ngeen amal kenn àq kon bu boobaa waaye bu ngeen fi bàyyee band yi te ngeen war cee mën a liggéey te liggéeyu leen ci ngeen bàyyi ñu ci danger loolu baaxul ndax senegale bu ci nekk li fi daan xew mën na xew ci yow raxas leen bandi ndax boo xasee nekk bandi wala defkatu nit mettital nit nga xas ko nekk pour nga pour nga bàyyi ko dee moo lay tàqale ak moom loolu mooy li nga xamante ni mooy li am dégg nga raxas leen réew mi jàpp leen sàcc yi dugal ci kaso bi yar leen ba bu ëllëgee waxuma la ñu génn waaye danañu fàttani ni sax maanaam nga téye leen ba ñu fàttali ñoom sàccoon nañu maanaam loolu ci yàggaay dégg nga ngeen war a def un bu nekk cinq

ñii ni ñu nekke woon doonul lenn lu dul reewande dégg nga doonul lenn lu dul reewande ak bon dégg nga yaakaar ni léegi dañuy def lu leen neex te du mujj fenn yow Sonko Jomaay yow Jomaay na nga xam ni ne leen na nga leen fenloo ne leen population bi fenloo jox nañ la suñu doole ba noppi kon defal sa liggéey ki nga sant pour mu def liggéeyam def liggéeyam bu ñu deful seen liggéey nga lijjanti leen ñeneen ñu mën a def seen liggéey teg leen fa remplacer leen parce que yàlla jox na la doole gi te ñun ñoo la ko jox yàlla ànd ci lii mooy li nga xamante ni mooy li am waxuma ña ñi la ko ñi la votelul mais ñun ñi la votel ñoo la ko jox damay gis ku ku contre gars yi toog ni ñu jox nañ leen réew mi xanaa dégguñu wolof da nga naan Séné yenn sénégalais yi jox nañ leen réew mi wala lii ci pourcentage jox na leen réew mi dégg nga liggéey leen waaye jox nañ leen réew mi sax léegi liggéey leen te bàyyi wax yow da ngaa joxe réew yow mi wax loolu da joxe réew koo ko jox yow da nga gañe da nga gembal da nga da nga nga perte booy wax kay demal rek nga waxi sa waxi opposition wala sa waxi leneen mais à chaque fois damay dégg beneen côté bee nii la ñuy waxee ma la ñuy corriger ci côté boobu dégg nga dégg nga ñun ñoo leen jox réew mi parce que lool la carte la gagné nañu aduna yalla daf ñu fay wacc lepp carte la manam ba ci dugg ci alcorane bi ni ca ngay dem lijjanti ji xam kan moy yalla ba nopi mën ko jaam parce que yalla neena na xam ma nga jaamuma lool la wax dégg nga dafa ni la xam ma nga jaamuma gaay nak tekki luñ leen lan moy xam ma nga jaamuma mais war nañ leen ko faran faccel ba ngeen gën ci bayyi seen xel waaw lan moy xam ma nga jaamuma ma léegi ñëpp bu ñu deewee dana dana am malaaka bu ñëw di ko laaj ay question waaw wala déet question yooyu noonu da ngaa war a jàll wala waroo jàll da ngaa war a jàll parce que question yi da nga ko war a répondre correctement comme ni ngay defee examen waa wala déet dégg nga ñu pare war a taxawaat xaar ba bisu pénc dégg nga yëpp doon ay ay point benn par benn jàpp bi nga doon jàpp nga doon jullit bu ñu yeewoo ñun ñëpp day lëndëm kenn du gis mais bu la yàlla dee baaxal bu la yàlla maanaam signes yi mën nga koo gis ëllëg yow mal xiyaam ci sa xaru kanam muy mu mu mu lay niital mooy ci loxo yi doon takk jàpp tikk jara yi maanaam jàpp booy jàpp quoi léppay leer dégg nga foofu mën naa am xayma lépp ci point yi la moo tax ma bëgg ñiy jàngale faren fàcceel sénégalais yii point yi comme ça ñu gën a sawar ci yàlla mais ñoom ni ñuy jàngalee pour gars yi sawar ci ñoom la lu ci bëri loolu la par point par point dégg nga ñu war a am loolu noonu parce que bu ñu bu ñu bu ñu bi euh, euh, ñuy dem euh, ar kii nu mu tudd safa kii nu mu tuddati jéggi siraat dégg nga te yow maanaam foofu noonu day lëndëm kurus doo gis bu fekkee ne amoo benn leeru njàpp wala yu mel noonu yaa ngi ci ba xam nga ni doo xam fooy teg say tànk yooyu yëpp ci point yi la àdduna moo ni mel nii la ñu ko yàlla bindee ñun nag ñu jël ko roy ko ci àdduna bi yëpp di ci roy di roy yàlla ci loolu mooy kart mais euh, carte bu ci nekk dafa bokkul waaw dafa am carte yoo xam ni baaxuñu am na carte yoo xam ni baax na waaw kon noonu la àdduna di tëddee yéen perte ngeen yaa xayti dégg nga wax leen leneen jéem a lijjanti leneen pour jéema wut beneen nit bu ngeen mën a teg ëllëg moo gën ngeen dugg ci yi gàcce dong moo leen ñi dal gàcce parce que gars yi ngi jàpp bu ñu jàppee ba pare danañu ñëw leeralal askan wi wala dinañu appare xam naa ne bientôt ñëw commencé def ay atte askan wi di gën a leeral ndax ñi ngi jàpp te ñu jàpp ñëpp dina leen atte incha allah dégg nga séentuwuma ci yow pour nga ñëw ànd ci côté population bi waaye xanaa dinga am gàcce ci réew mi waaye ku leen xool xam ne du ñu ay nitu gàcce parce que nit koo xam ne dañ lay fay ne la demal wax demal nga waxal ma dañ lay fay ne la demal nga défendre ma kooku yàgg ñiy jaay seen bopp benn ngeen bu dee góor nga bu dee jigéen nga dégg nga benn ngeen waaw entre parenthèse rek may mën a fay ndeysaan gis naa ni fii moom ku ci nekk di nga am ay fans réew mi noo mën a mel rek mën nga am benn nit wala ñaari nit yu la bëgg noo mën a mel nag noo mën a mel waaw mais mais sa branché wu boobu laa lay wax bàyyi ko ndax may mun a gars yi dañ laa xëpp xaw ma dégg nga wala fa dégg xam nga ki ñuy branché mooy ki ñuy ñamal waaw ki ñuy ñamal quoi di la branché booy. teg la ci benn côté comme ni koy defee sa mbokk journaliste yi dégg nga ndax lépp dina leer fii ci réew mi ay ñoom temps tànjaan ñëpp ci la ñu demoon dem ubbi ji ay siib bu ko defee politiciens yi buñ doon ko xeexee di jël xaalisu Sénégalais yi ak ñoom Aïssatou Diop Fall di leen ko balancé xaalis boobu yëpp dinañ ko nangu te ñoom xam nañu loolu Aïssatou Diop Fall kañ la fi commencé di di fëgg dënd naan man dama ba ma amee yàgg na kañ la ko commencé ci jamono i Sall ñëpp xam nañ ci jógal këru kër yooyu këru ëtt yooyu la dëkkoon mais jamono Macky Sall moo ñëw enrichir di leen jox ay trois cent millions cent millions nga yaakaar ni yéen ñii ñëpp di yooxu xamuñu lan moo tax ngeen ñuy yooxu pour yéen ñun xamuñu ko quoi na ngeen xam ni na gouvernement bi dana nekk ci seen kaw wala ñu xiirtal gouvernement bi mu dal ci seen kaw nangu alalu askan wi parce que moomoo leen ko ki ko sàcc dèjà moomu ko bor bi ñuy tudd nii mbaamu xaraam yi may tuddu yeb lek nañ ci muy tonkara bu 2S Aïssatou job Fall mi ma tuddu de nga ak kenen ku sama xel dem rek daj de nga ma tuddu la wala ma bañ la tuddu milliard yu yi ngeen la ngeen Macky Sall la rek ak Sira Dia you know ak eh, xawma ki ki non ñom mbaamu xaraam non yow nak len rek lepp nangu ko jomay na nga nangu lepp do la xamul njoowaan ndekete dengan di ngeen jaay seen état si ngeen doon profito di ray xalé yi dina leen coûter cher yeen bu soobee yalla dina leen coûter cher parce que bu fekke ne ki ñu jox rew mi day jaamu yalla te mu wara top yoon kese am ngeen problème xana kay ñi mu ñeneen ñi nga xamanteni ñokay wut ñeneen ñi nga xamanteni ñoy liggéey justice bi di def ay tapale te loolu luñ fi mën def dana ko noter waaw dana ñu leeral carrément ni justice bi kii kii tonne seen maam jëlee xale yaa ngi jàng waaw def fi ay ndaw parce que ndaw ñi sax lañu ñu war a jël quoi jamono bu demee ba yàqu sóoratu kaaf jàngal nañu ko sóoratu kaaf dégg nga mooy ñaari ñaari ñaari xale ya nga xamante ne woon dañoo maanaam dañu nelaw rek maanaam nelawu dee noonu waat ci beneen génération bi ci sóoratu kaaf jàngal nañu jàngal nañu ko de ndax yu mel nii moo amoon yàlla def loolu lu mel noonu kon wan yàlla moom toujours wan nañu yoon bi bu yàgg ñun ñoo fi nekk di dof doflu wala di katakay nilu wala leneen ak leneen waaw xoolal xoolal gars yi jaay seen gerte ñu ngi nii dèjà jox leen seen xaalis jamono Macky Sall dañ leen dañ ko daan jënd daawuñu ko jënd sax kon Tunkara bandi la te lekk na ci xaalis bi te ministre conseil yu bëri yooyu dégg nga topp leen Macky Sall trahison moom li mu jël li mu jot a jël lépp def ko ci kontam ngeen nangu ko moom Tunkara bandi la kuy dégg mooy bu 2 ku dégg ni muy ni muy analyser chaque jour rek nga xam ni kii bandi la dégg nga ñoo xam bëri nañu fii mais loolu tappale la quoi xaalis bi ci ñoom la nekk ñoom ñoo lekk xaalis bi tabax ci ay kër leer na ma ni takk ci ay jabar ndax sa bakkan yaatu yooyu leer na ma ni ko bëgg ay jigéen yu bëri nga mbaamoo xaram bi doo ñu wax sa vie privée ñaata jabar nga yor Tunkara ñaata jabar parce que tamit yaa ngi liggéey de ministre conseil dépense la de mën na yor ñaari jeeg de dégg nga université bi ngay jàngale foofu tamit war naa mën a ñaata nga yor ay mbaamu xaram lañu seen kii nekk ci seen ruq xale yi di dee dégg nga ñuy dem di ruux Macky Sall muy rey sénégalais yi ñuy jël chaque weer di leen daggal ay chèque te Macky Sall leer na ma ni lu bëri la leen doon jox leer na ma ni yemul ci ministre conseil deux millions yi kese ni mu doon takkalee gars yi la leen doon takkalee nga firi sa bakkan bi yaakaar ni mën ngaa toog fii ci biir sénégalais yi ah ci biir sénégalais yi ngeen bëgg a jaay sénégalais yi encore te ñu yor réew mi ndax ngeen seen bopp fii yéen a xam lu leen neex mën ngeen ko wax mais xoolal mënoo leen changer fii benn xelu sénégalais anyway ma lay fàttaliwaat sa parti bi seey na ci biir Pastef ba faw waaw yow dong yow lañ ci yaa ci kii nii def na leen te ñëpp soxlawuñu ñëpp ànd ak ñëpp waaw Ousmane fii laa lay tontoo am na benn waay nee na chroniqueur la quoi dégg nga fii koy tontoo Ousmane Sarr ñun duñu taalibe sonk mais seen analyse yu bidon yi ngay ñuy analyse dégg nga ni bu ngeen ko ajee fii ci Facebook bi nit ñi commentaire ku mu ci metti nag bul bul aj dara ci Facebook bi loolu mooy dëgg waaw ku mu ci metti bul aj dara ay tappale ci ngeen nekk tappale tappale li ngay ñuy jël di ko baleem gouvernement bi da ko da koo def léegi yow maanaam sa commentaire bi maanaam journaliste yi fi nekkoon fagadaga yi gouvernement bi daf leen war a bàyyi di jël xaalis Sénégal di leen ko jox yow noonu mooy sa gis-gis pour développer Sénégal kon loolu mooy sa gis-gis nee naa la del fay say impôt yi demal nga fay impôt maçon nga yor ay nit di lay liggéeyloo yaa ma ko wax fayal say impôt te sa liggéey sa façon use tabax yi ngay tabax dara rafetu ci dégg nga naan nga mën kii naan naan day def plan ingénieur laa dégg nga damaa jëflante ak moom may wax ingénieur la ma ne ko waa léegi wan ma li nga sox li ngay li ngay defar mu wan ma ko nekk bëgg a nekk maçon nekk ingénieur xam nga loolu mooy tappale yi kenn ku ci nekk yow yow sa bii sa bii nii ñu mel na ñoom ñu mel na ñoom euh, mooy tax réew mi du avancer parce que yow maçon nga déjà mais nan nga mën nekkee ingénieur di di def eh, ay palaa di defar palaa ah tabax yu bon yooyu yow dèjà sa xel mi baaxul ba mën a tabax lu rafet dégg nga modèle yi nga ma fi wonoon yow Ousmane Sarr dañu waxante dëgg rek moo tax sa gis-gis mu wuuteeg suñu gis-gis loolu kese la fii du question ne da ngeen am xel wala yooyu moo tax ngeen dem taxawee ne de du lool de ay saboté moo leen tax ngeen toog ci tele yi te ñooñu journaliste yooyu noonu ñom xam nañ ni yeen ay saboteur ngeen dégg nga ñuy xex ba jëlé fi Macky Sall dégg nga conséquences ni mu démé yépp nga xam ko di dem di ko di fonto nit ñi fi yaakaar ba nopi nak ku ci def ne kenn du wax kenn du ci commentaire nax nga sa bop encore une fois waaw nax ngeen sa bop seen genre gogu yépp nax nañ seen bop yow ak sa xarit Karim Gueye xurum xaq encore une fois nax ngeen seen bop Karim mo leen gënon bëgg dugg ci assemblée euh, euh, bi te bu nekkoon nit affaire bi du dara yëfi dof la doon def dégg nga nit ki doo ànd sonk du sonk du la du la dugal ci ay mbiram di la def député dégg nga fa nga doon da nga doon calculer nga perte da nga doon carte nga perte loolu kese la mais yaa gënoon a bëgg dugg ci assemblée bi xam nañ la bu ñu fontoo xam nañ la ay toog fii naan ay nitu dëgg doo benn nitu dëgg xam nañ la de bu ñu fontoo nag waxal sa xarit bobu non Ousmane Sarr tamit ñu nekk ay nit fi lu ngeen fi bind man dina ci commentaire fu ma leen gisee ngeen wax waxi dof ma commentaire point bar lool ngeen ñu bañ ma def ko dina ko def nak dina commentaire ba mu neex waaw nekk leen nit waaye yow journaliste yi gars yi ni ñu defee ségg affaire yi seeval Sénégal ba nopi yokku budget ba ñi buñu bañoon Sénégal kay dañuy wañi budget ba mais dañoo yokku budget ba déjà te ba noppi ñoom ñi nga xamante ni dinañ leen jàppale dinañu gën a néew kan moo la wax 2S euh, du ci bokk te 2 mi ngi noonu fa la ñuy yàkkee Sonko lu ne ñoom bu doon seen pexe la tey sonk du fi toog te euh, legal na légalul waaw wala déet Ahmed Aïdara ànduloon na gars yi légalul ngeen bëgg fi nekk di indi ay coow léegi yow maanaam ni ma déggee ngay waxee foofu noonu ci ndaw ci si tele ba mooy loolu segg bi waruloon am kon Sonko mi ngi def dictateur ngeen di analyse binoo ngeen naan ma fii nii yow dèjà amuloo xel boo amoon xel booy tabax dangay tabax lu rafet dégg nga yu modele yi ngay dóorkat nga comme ñëpp waaw parce que euh, ingénieur bi maanaam defarkatu plan bi moom plan day defar plan ñu fay ko mais yow waroo mën a defar plan boo di tabax amuloo lijaa sa yooyu te yaa ngi koy def sa genre gii du ñu xajal yeneen sénégalais yu ñu mas yow da ngay bëgg jël lépp waaw wala de dégg nga kon xam ngeen xam ngeen ni sénégalais yi duñu ay dof ñun duñu ay dof duñu ay malhonnête xam nañu bu baax li ñuy tànn xam nañu bu baax liy xew ci àdduna bi dégg nga te bëri na ci yéen ay complexe ngeen quoi bëri na ci sénégalais yi ay complexe lañu tubaab bi rek tubaab bi moom bu waxul genre Cheikh Thiam yooyu li tubaab bi wax buñ ko moom la ñuy indi pour dëggal ñii ay dof lañu ay complexe lañu xaw ma fu mu nekk est-ce que jàppuñu ko sax Cheikh Thiam mbaamu xaram bi hmm? gis nga jàppuñu ko sax ah dégg nga genre yooyu noonu nañu waxante dëgg sama gaay dégg nga ñoo bëri ci réew mi nag yaakaar ni ñoo ëpp nit ñi xel c'est parce que yéen journalistes yi dafa am agenda bu leen tax a jóg ñooñu di leen jox euh, micro yi noonu dañoo am agenda yéen nag yéen maanaam bu ñu ko doon wax mooy yéen yéen yéen ay yéen kobaay kobaay bi la xaw ma kobaay mooy bu ñuy bu feebar amee ñi ñuy jël bu ñuy jël janax yooyu noonu di leen utiliser bala ñuy faj nit ñi yéen loolu ngeen ay janax ngeen yi ñu yóbbu ci laboratoire yi te xamagoo leen ko tey xam ngeen ko sax yéen ko tey te loolu ngeen ciy gañe sax neewuñu neewuñu nga nga ànd ak Sonko ak Jomaay ci lépp lu mu def mais man mi ànd ak moom li ma gis mu doy ma man man man man mi ngi may doy li ngay wax man doyu ma nga ni ñun ñun ñun ay ay ay fans ay fans Sonko lañu ñoo waaw ñii ñii ñii dañu yebaate quoi du ma fi bàyyi benn mbaamu xaraam muy analyser analyser bidon Macky Sall euh, euh, économie réew mi da koo tonni li ñu waroon dund deux mille vingt quatre yóbbu na ko loolu noonu lan la ña lan la war a jël pour nit ki gëm ko lan la war a jël lan la war a jël pour nit ki dégg ni Macky Sall def na li kon kay bu gars yi nekkee fii di góor di fay salaire yi te gisuñu ñu génn di grève grève yi metti yi gisuñu yooyu noonu ci réew mi de kon jàmm a ngi am te yàlla ñuy suturaal te it ñun duñ leen bàyyi ñu lajj ñun ñun ñun bu fekkoon ne dem nañu ba nga xamante ni nee nañu dañoo am problème mu cinq euh, deux milliards pour fay weer wii nii dinañ ko cotiser ndax réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp te bu neexee li ma metti ci mbir mi mooy bu neexee ñëpp ciy jariñu bu réew mi neexee ñëpp ciy jariñu waxuma benn benn yi génn naan dëkk bi dafa dëgër wala yooyu ñoo ñu laaj leen leen yéen ñi leen journaliste yi laaj leen fan la doon jëlee income parce que dëkk bi dëgërul nit ñi doon liggéey ñu ngi liggéey ba tey di ci génn ku ne la dëkk bi dafa dëgër ñii defuñu fi dara fan la income doo jig doon jige tey ki ma ci jote a dégg maçon la est-ce que bokkul ci chantier yi ñu doon luubal ñu arrêté leen ci xaalis sénégalais yi ñu sàcc dégg nga nañu waxante dëgg rek xam nga man yow maçon bi mën nga génn wax ne dëkk bi dafa dëgër wala yeneen ak yeneen wala yow Ousmane Sarr ci la nga si ngay profité dëkk bee dëgër moo tax nga bëgg ko yan Sonko ak Jomaay xam nga tey déglu naa beneen maçon ndax sàcc yi tabaxatuñu te yow sàcc yi sax soxlawuñ la ndax façon tabax yi ngay tabax yow sàcc yi ci boppam duñ ko tabax gis nga matériel yi ñu yor ay ingénieur yu fort la ñu yor ak yeneen ak yeneen ay lu ci nekk ak di defar ay ay souterrain mbaamu xaraam yi sàcc yi souterrain souterrain est-ce que mën nga mën nga loolu xam naa tamit dëkk bi moo dëgër quoi moo tax gars yi bëgg koo yan Sonko ak Diomaye maa ngi lay commencé comprendre sax brother maa ngi lay commencé comprendre koi yeah mais sama gars yi ko combat continue bu kenn dellu ginnaaw waaw fépp foo xam ne gis nga lu am njariñ loo xam ni mën na jariñ population bi sama téléphone bi war naa war a mën a fay ndax ba mu ba mu kiiwee commencé signaler pour fay yàgg na waaw bala muy fayu rek ma ma ñëw tëj waaw fu euh, euh, projet bi ak sàcc yi mooy suñu yitte projet bi man gars yi ni séentuwuma leen pour ñu tabax réew mi pour ñu tabax dara nañu maintenir fay fay salaire yi ak yeneen dégg nga xabtaluñ leen ci dara jàpp leen sàcc yi ak criminels yi nangu leen armée yi désarmé leen désarmé leen jël armée yëpp contrôlé ko waaw nangu leen armée bi yëpp armée yëpp yi yi nga xamante ni yoroon nañ ko pour contrôle pour ñu protéger ko réew mi pas sénégalais yi fetal yi ñu yor yëpp nangu leen leen waaw ay bandi lañu leer na ma ni yor nañu ay fetalu armée de ci seen kër yi ñoom politiciens yi leer na ma ni yor nañ ko te képp kuñ ci jàpp na ngeen teg ci loo xam ne lu foor a foor la dégg nga vingt ans di ko tëdd surtout nag boo yoree armée de def leen ko ci assemblée bi lu mu gën a gaaw ñu voté ko nu mu gën a gaawee rek ñu voté ko ndax réew loolu dafa neexul quoi yii da koy def ci dëkk tubaab yi yëfi band yi ñu def nii da nga ko ñemee def ci dëkk tubaab yi ñu daw dem ne ñoom ñemewuñ ko fa def bu ñu demee dañuy def taatu neen ci loi jàmbur waaw ku mu neexul nga dem loi bi loi la suñu loi la loolu lañ lay wax sax ndax dugg naa fenn léegi benn tubaab boole benn benn benn jullit naar xaw ma fenn quelque part ci tu dëkk tubaab yi xawma ma amee anglais la doon wax nag ma gis commentaire yi waaye tamit am nañu point quoi am nañu dëgg ñi euh, ndax euh, loi bi tamit mayu la nga jël sa sa van def ci ay bagages gaare ko ci mbedd mi waaw loolu la ko boolee woo polis ñu daal di yóbbu baat ba ma gis commentaire bi waaw ma gis ñii naan doo ñëw ci dëkku jàmbur di dicta di dicta di dicté dëkku jàmbur ñii di wax naan bu la su suñu luwaa bi neexul daal nga delluwaat sa dëkk eh, ay anglais la yaakaar naa Amérique bii la sax dégg nga seen commentaire yi boo koy déglu sa xol day jeex sax moo tax Sonko ak Jomaay liggéeyal liggéey leen ba xa ba nga xam dinañu tabax Sénégal boo xam ne lii ci desati si suñu àdduna dootul ñeweti benn dëkk benn dëkk dootu ko ñewet ku des bitim réew nag yaa xam waaw bu boobaa waaw ku demul ba ca biir doo xam la ca biir mais mbir mi lool jàpp sa njàmbur ngay def mën cee génn lu ñàkk fayda rek léegi mën na say mbokk ñu yepp la ci kii hmm. lu ñàkk lu ñàkk xorom sax waaw léegi benn doomu aadama jël ci sa bakkan lu ñàkk xorom sax lu ñàkk fayda maa maa la ko wax kon na ci gars yi bàyyi xel bu baax a baax siñaale bépp sàcc ak bandi ñu jàpp leen dugal ci kaso bi asalaamaaleykum wa rahmatullah sama gars yi maa ngi dem nelawi nag waaw ku fanaane liggéey nag heure bi nelaw jot na huit heures